Pourtant, sama choix je suis énervant xaalis nga ne bisu du ko dem jël bisu mu ko ñu ne ma yow non ma bisu putain eh. kay waxoon fa non non non arrêté fa genre tey non tey damaa nerveux wa non tey non tey damaa nerveux de. non tey bii laay walaay wala ma soog rek nga dee. te ma jour ma dee Sénégal yi gis néew bu soxor booy sangu dama lay feeñu ngay sëlmu ma lay feeñu ngay fóonante ma lay feeñu ngay looy def dama lay feeñu ngay togg ceeb ma lay feeñu. waaw xam nga yow sa yëpp la yàq dina yàq sa image. non non sa image sama image bu yàqu ba ma waxee dafa la sama image yàqu wax yow bii <laughs> sa dem jël xaalis yi bisu. demuma. mais pourquoi demoo mais c'est que attelé ma bisu xaalis gi ne bu nekkul ne ñoo jëlee ko mu ne ma ne il faut bu de bis bu ma def nit dof la bis bu ma def nit dof laa. ma ne xaalis bi doo ko jëlee dañ koy def si yoon bi putain de merde. mais def jëkk man la nga ci réew mi lu ñu waay. mais mais waa mais. demoo mais waaye defoon nañu la mais bisu il faut. bisu eh, ci yoon lañ koy teg. liggéey la yow lan ngay doy dara ci réew mi lu ñu defarul defal ni. ne bii mu war na sa sa mi bu xonk. ki mi xonk dëkk bi toj na. absolument mais bisu tey damaa énervant billah yaa xam barke alxuraanu karim mais bisu dina jël la. nañ ko teg si yoon lan nga soxla bu ko dara su ma nekkoon dara yoon man dina am oto wala Sénégal yi dama déglu putain de. non non non eh, eh, damay damay lay sànq tey non non damay jëli ko ah léegi léegi ma ma ma ma. ils sont si te donné l'argent. ah xam nga sama oto gën a seer sa bopp. mais bokkul euh, mais bokkul les Ford Fusion absolument. mi ngi tudd Ford Fusion absolument. ça it. Full option moom nga wax absolument. ah Full option laa ko tuddee absolument mi ngi tudd absolu Full option. Bébé, je vous teg teg teg ma sol tey ah. eh li nga sol. Karl Lagerfeld li ma sol mi ngi tund Karl Lagerfeld. Karl Lagerfeld kii moo takkoon ñaari jeex yi mi ngi tund Karl Lagerfeld. voilà xaar rek. ci biir Karl Lagerfeld. sac bi Karl Lagerfeld. doy bi Karl Lagerfeld. sama cuuti bi Karl Lagerfeld. à part ça dina wooyee police Karl Lagerfeld. tout da war a rond-point bi. Karl non Kaay ba ci nekkee ba tey kii mi. Karl Lagerfeld. Karl Lagerfeld bisu man damaa toog nu ma neex laa koy waxee nii Sénégal yi dañuy comprendre su ma ba son marqué nga xam ne man ay fila laa la toll fila man at yàlla at yàlla mën na tëral dof. la yàlla mën na tëral dof lii xaw ma ko ay Karl Lagerfeld ay marqué fila laa la sol wala fuubu su ma nee bay sol fila su ma ba bay sol Karl Lagerfeld jamono avancé na waxi dem neex na. waaw man maa pour nit ñi xam ne nga ngay fekk. solu bisu bisu dawal kat laa de maa mën a dawal dawalu daf laay dawal yàlla da ciy ànd du ma accident du ma def soog ku ma yéene soog yaay def soog. police mbay bu ma ga bu ñu eggee ci banque bu ma wàcc oto bi. ba ba di wax ñu yónnee ma sama oto. te bisu maa ngi maa ngi takk fóot. ah seen ka ñor ko sama barke la. noppi waaw waaw loolu sa barke la waaye ñoom dafa ñu tuddee ndax ñu may ma ko xam ne damaa xew ma xew woon duñ ma ko may xew rek a neex bisu. la oto mayuñu kii. <laughs> faatuloobe <laughs> wala abindu ah looloo may ñu wala wala kii la <laughs> moo tax may la moo tax may na sa gaal la mu naat waaw xam damaa xew biisu xew loo ci def suñu borom lu mu la may rek ñoom bëgguñu ma de sama xew lañ bëgg biisu sama xew lañ bëgg biisu doggu ma moo tax il faut dans la vie il faut être profito il faut dans la vie il faut être profito de. yaa ngi profito nag. ah maa ngi koy gis yow sa fay maa ngi koy gis nii. police sa fay maa ngi koy gis nii. ñaata laa la ñaata laa la jox Pardon ok Sénégal yi nag lii xaalisu dof la ku ma ci cattu ku naan projet am xaalis ba cattu ma ci nag xaalisu dof la te neexul a lekk ku ko lekk te mayi ma la ko di nga génn àddina wala ku ma ci na am naa xaalis ba ba Sénégal yi bëgg maa xew di nga gaañu xaalisu dof la dama ko liggéey c'est le travail kii moment nag te ba yaa ko liggéey lii nii som naa de te ñu naan am na xaalis léegi bu ba xewi bu leen ba xewi de ba xewi dafay dimbali di ma oo beneen métier liggéey naa mécanicien yi dàq ma soudeur ñu dàq a footballeur ñu dàq ma ñi ñi dañuy kontaan parce que xaalis laa leen di jox du xaalis bu ndox mais du xaalis bu ndox du xaalis bu ndox ok compteur allez vas-y la la compte la mo la argent na waxee ndox ci réew mi am na solo te Sénégalais